tey ñu fas leen yéene andil xikma bu amati solo tukkee ci sunu yaakaar sëriñ Tuuba xaadimu rasul mu jógee ci njàngale mu am solo moom mi nga xam ne nii daana ko njàngale ngir yéene jullit ñëpp muccuk àdduna ak àllaaxira ak njëriñul àdduna ak àllaaxira te ku na xam ne moom loolu moo doon ab taxawaayam sëriñ Tuuba yërmande yi sunu borom la waaye xéewal ak sunu borom la gukk Euh, ay principe am ak xërëfam objectif am lépp mooy mbindeef yi am teex ak àdduna ak alaaxira ba tax na mës sa dañ ci di dénkaane yoon wi nga xam ne nii mooy yoon wa ñuy jaar ba mën a mucc àdduna alaaxira waaye jariñu tamit àdduna ak alaaxira euh, tey ñu am ay bayit yu ñuy barkeeloo ci téeram ba ñuy wax ma xaalixu niiraan nga xam ne mi ngi ko bind ci wàllu tasawuf di ca soññee ci wàllu xam-xam te ku na xam ne ne moom nitu xam-xam la woon euh, sëriñ bi ko fonkoon xam-xam la joxoon ko ahamiya euh, ba tax na daawul neenal dund kenn ci lu dul mu teg ko ci yoonu wu muy xamloo buñ seetee sax ni muy waxee nga xam ne day soññ mboolem jullit ñi rawatina taalibe yi ñu gaaw buur jëm ci sàkku xam-xam ci ni muy waxee rek na ngeen gaaw jëm ci xam-xam yéen ñëpp bàyyiwuma kenn te ngeen jëm ci ngir jëm yàlla rek maanaam bu leen ci bu leen ci am benn jubluwaay bu rut ngir yàlla fasaariu lil ilmi ajmaina li si sil jalaali qasidina waaye nag gannaaw bu ci soññee ñëppit da cee gën a soññete nag ñi nga xam ne ni ñoom dañoo dañoo jiite mbooloo maanaam ñi ñuy wooye ay sëriñ nga xam ne ni ay nit dañuy dañ leen di topp ci yoonu yàlla Euh, ndax ñëpp ay sàmm lañ ni ko yonente bi sallallahu alayhi wa waxe waxee kullukum raain wa kullukum masulun an rahiyati kenn ku nekk ci yéen ab sàmm la te bu ëllëgee suñu borom dana ko laaj ak caawam lam daan sàmm waaye nag masuli yi tolloowuñu maanaam responsabilité yi am na koo xam ne ni moom mbooloo mu baree baree bare la jiite am na koo xam ne nii mbooloo mu yam la jiite am na koo xam ne nii sax waa këram rek lay sàmm ak njabootam nga ne ma ki nga xam ne ni kon amut waa kër amut mbooloo amut taalibe amut dara man la kooku day juróom-ñaari cëram lay sàmm ñooñu lañ koy sàmmuloo kon ku dul ab sàmm amut moo tax yonent bi sallallahu alayhi wax loolu moo tax sëñ Tuubaa daal ne rikk waay yéen ñi nga xam ne ni da ngeen di jiite mbooloo bala ngeen a jiite kenn wala ngeen di wéet ci seen bopp wala mbooloo di leen topp na ngeen xamlu bu baax a baax xabla tasabduri wal infiraadi bi nafsi wala atbaai fii tamaadi ndax nee na kat lëndëm lëndëmi bi daay e, pas-pas day fekk leeri topp sunna si yonante bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam nit ki bu sàgganee ba pas-pasam lëndëm nga xam ne lëndëm na ngir topp bidaa dañ koy xañ leeruk topp sunna si yonante bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax mu ne izulumaati bidaati itiqaadi takufu anwaar tibaa'il haadi daal na nag képp koo xam daf leen a tere ngeen di xamlu na ngeen xam ne tereem googu yi mi ngi askanoo jëm ci ak réer day réerale kon nag sëriñ bi moom euh, libéré na ñëpp ci ñu jéem a xam lu tax nag euh, nit ñi taxaw temm ci xam-xam ak diine ñu féetale ko aw nit daal na ñoom ñoo war a xam lu ñu ci des lu ñu xam ci seen diine mu doy ñenn ñi sax duñ ko jéem dañ naan ab sëriñ wala doomi soxna daa war a xam lu déedéet te loolu pexe seytaane la xam lu ñëpp ko war a def. moo tax sëñ Tuubaa ne na man nahakum ani taallumi fa nahyuhu ila dalaali yantami mu ne ngir képp ku leen tere ci jamono ji xamlu na ngeen xam ne woote na jëme ci biddaa bu ñaaw ndax jëf lu mu rey rëy bu tegewut ci xam-xam dafay yàqu lu man fi sa zamaani manaa min taallumi fa innahu daa li bidaatin shaniatin isil amal in lam yakun bil xilmi shaabahu xalal te sàkku xam-xam day farata ci ab jullit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 bañ ma na jot ci buy bi ñëpp tiim ko ñii màcc ñii notari ñii njàmbaane ko ko féete woon naa nit na seggal ko in uridu illa al islaaha ma stataxtama tawfiqi illa billah wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala